maa ngi nii rek ça va naka foofu ah namu naa la de ah ça nii rek tool bi nii tuuti rek di sax tuuti rek dina métti nga la déggee rek mais day xaw foofu si man tuuti waaw waaw waaw tey du ñu gisee nag. eh sama doom eh sama doom maanaam. Eh. doom sa ndey liggéey na waaye doom gontoo doom ah doom yow yaa yaa ñàkk jom. yow yow yow sax yow nga jom. yow xanaa sax booy booy def lu bon li ah, la guddi gi nga dem mu waaw mu ñàkk sa lu bon donc ah, <laughs> dama dama. 15 ans de prison. yow xam. tey te kay na xam. ak lu bon li xam yow benn baar yow. ci doomu jàmbur ya ngi jàpp que ni di ko xaseeg doomu jàmbur ba ci bu dee bu dee ko ci yoon ñu ko teg ci yoon. waaw yow yow yow dama laaj yow lu la fi sax yow lu la fi <laughs> yow doom ni day am jom doon xelu see nga am jom. Ah, waaw bàyyi ah ma. Mm-hmm. yow fi nga dëkk. bien sûr. Mm-hmm. sa kay nax yoo xam ne da ngaa da ngaa maa ko yow waay nga waay. damaa kii sa kaye nax waaw wuy ma est-ce que boo ndogoo doo ñëw k a r ga après ma ndogoo ya. loolu du dara woon. jëy sa kaye nax wuy ma jox joxu ko ñu ma ñ ë p n yi ma sa ñu ma. d i i la wax. moo koy naa jël. bien sûr. taxal tax. ok. jëy sa kaye nax. papa. d a r a i m e n t xale baax nga lu mën a dégg. xale bu jigéen. waaye waxtaan naa ak moom. waxtaan naa ko moom yàpp nee naa ko yéen def yaay bëgg ko. nit ku baax day sooy yu rafet di sooy yu baax di xëy neex. xam nga doomu ji day xool yi muy def. waaw da ngaa doon nag sa baay. déedéet kay. Pape sama turandoo gis naa ko tey. sa turandoo. waaw ñaata la may. non yooyu ma day de. su xanaa nuyoo ko benn ba. déedéet. maa fàttali tuyam yaa fàtte. xam nga ne turam laa fàtte. ah maa fàtte tuyam kay. waaye xam nga ne maa fàtte turam. yow sa yow doo tudd. moom yaa ngi ni. waaw. dëgg la dëgg la foo nekk foo nekk ah. waaw ma ñoo ñoo suñ koy yéegi. buñ ko ko bàyyi ñëw xool. sama jàpp sama jàpp. déedéet da kay nax xool xool buñ jàpp. con pei cái wow wow wow nyu ê tăng kiến to ko tăng kiến to ko ni ya ko nyu mi mu nyu yi wa nyu nyu ko san te san te so si yi à fa wa aha aku be bi be punga kame tan nyu de ok yéen xam nga mooy lay ay xam. parce que suñu yaay. yàlla naa sax bii. pour ñu ko xay gis man. waaye mu guddee. ah mu guddee. man nga am suuf. eh. da nga sant de. ah sant nga de. ah yàlla ma sañ se. ma sëbën daal. dégg nga. waaw. min kër ga ma denc ba. foofu bay mu bañ mu yàqu. da ngay def yéen seen. di bu yàqu rek ma jël boobu soo ko. ah kay amul benn problème. sa papa amul benn problème sama yaay amul benn problème kii gi xool ngante ni yow mën nga fi dëkk fii comme lii sama yaay du wooy ah, man du ma wooy caaj ah, yi caaj du wooy wuñu yaay hmm. kii gi ngante ah baba ah kii sa papa am problème am na lekk am yii yëpp wuñu yaay day def yu neex mbaxal wuñu yaay day def yëpp bàkki yaa ngi bu tooy mbaxal yëpp yëpp yi def yëpp yëpp ah. eh. gis nga sama problème de eh. papa பாவே பாவே பாவே இரு பாவே பாவே பாவே பாவே இரு பாவே ஒரே யா பாவே தீ முனி பாவே ஒரே முனி பாவே பாவே sam do தீ முனி இரு முக்கு யா முக்கு இரு யா அல்லாஹ் la ay ஏ முனி பா damay xawi de xam xarum damay dee de deel ba ba damay xawi il benn ba dem na boppam